bu seetee ni amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul borom bi subhaanahu wa taala jaamu gi di jëriñ ñàkk jaamu gi di lor ku dul moom subhaanahu wa taala doomu day tey nag suñu émission bi fatwa la fatwa buñ ko waxee mooy ubbee euh, kii di wax ak yéen mooy al oustaz Mouhamed Sène yàgg gu ci martaba boo xam ne damay ubbee waaye nag damay nettali walla damay jottali ubbee yoo xam ne boroom xam-xam yi ñoo ko ubbee ci ay masala yoo xam ne ñu ngi jëm ci tabaski ak attey tabaski kon suñu émission bi tey ay tontu ak ay laaj la yoo xam ne ñu ngi jëm ci àttey tabaski laaj bu njëkk bi mooy àttey tabaski àttey tabaski boroom xam-xam ñaari voir lañ ci am bu njëkk bi muy lu ëpp ci boroom xam-xam yi nee sunna gu ñu teegal la seen dalil mooy xadiisu ummi salama radiallahu anha anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمص من شعره وبشرته شيء رواه مسلم kon ñi nga xamee ni dañ ne sunna gu ñu dëgëral la te mooy lu ëpp ci boroom xam-xam yu jiitu woon yi surtout tamit boroom xam-xam yu mujj ci suñu jamono ji wala rasihim samahatul walid Abdul Aziz ibn Baz ak cheikhana cheikh Mouhamed ibnu Salih ibnu Uthaymin ak ñeneen ñu mel ni ñooñu sunna gu ñu teegal nañ seen preuve mooy xadis bi ak jëfu ndax wër na Abu Bakr ak Umar radiallahu anhuma yenn ci tabaski yi tabaski wuñu ndax ñu xamal ni ñi tabaski du farata kon am nañ preuve ci xadis am preuve tamit ci xulafa ar-rachidun te tamit ñaan ñi nga xam ne ñoo ci gën gën ci ràññee muy Aboubacar ak Umar daf nañ loolu kon loolu mooy lu wër li donte ne am na ñenn ci ab borom xam-xam yu euh, lu ñu farataal la waaye wax jooju wërun wallahu taala alam beneen laaj bi mooy ndax dina dagan man jullit bi su ma rayee sama tabaski ma may ci yéeféer ñu ne la tontu bi dina dagan yow jullit bi boo rayee sa tabaski comme niñ ko xamee ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne nanga ko ñetti xaaj lii nga lekk ko yàgg sa waa kër lii nga mayee ko walla nga saraxe ko lii nga denc ko maye gi nag mun nga ci may sa mbokk yéeféer mun nga ci may sa dëkkandoo yéeféer ndax yéeféer suñu mbokk waaye sa dëkkandoo yéeféer xamal ko ni suñu diine gi kat may googu sax da koy xamal ni suñu diine gi diine bu yaatu la diine la goo xam ne dafay wormaal nit surtout nag sa dëkkandoo donte ni bokkoo leen diine wallahu taala alam kii day laaj mu ne ndax dina wër ma lebu pour jënd tabaski waaw dina wër nga lebu pour jënd tabaski waaye charte bi mooy na fekk ni lebu gi lebu gu mënoon ñàkk la moom lebu ay façon la am na lebu goo xam ne lebu gi mënut ñàkk am na leb goo xam ne leb gu mën a ñàkk ci misaal yaa ngi ci dëkk am nga xaalis par exemple mu ngi banque tey bu dee ci suñu réew ku mel ni Sénégal la da tukki woon nga ñëw aljuma sa xaalis a ngi banque samedi ak dimanche yi duñu ubbi nga lebu kenn ku la jege ndax xam nga ni tabaski ci misaal bu dee tabaski altine la nga lebu kenn dem jëndi loolu dara new ci waaye nag koo xam ne amul fu mu teg maanaam leboom leb bu mën a ñàkk la foofu moom du dagan ci moom muy lebu pour di tabaski wallahu taala alam kii day laaj mu ne su may rey sama tabaski lan laay laaj bu am solo la danga naan bismillah allahu akbar hada minni wa an ahli bayti bismillah allahu akbar nga ne lii de sama tabaski la man ak sama waa kër wallahu taala alam comme ni mu ñëwee ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii dee laaj mu ne ndax day dagan sama tabaski bi ki ñëw di ma feesal ma fay ko ci yàpp bi tontu bi du dagan ci yow nga jël yàpp bi nga xam ne mooy yàpp tabaski bi nga koy fayee ki feesal du yàpp bi du sax der bi kon ñàpp beeg der bi yëpp warul nekk fay soo ko fayee nag ci sa xaalis ba pare nga yëkkati yàpp may ko dara newu ci wala yëkkati der may ko dara newu waaye loolu bu mu doon fay loolu bu mu doon ne lii mooy payooru coonam ji mu def ci fees bi wallahu taala aalam kii day laaj mu ne man day am ay mbir yu may xaw a di gaar mbir boobu mooy waxtu bi nga xamee ni waxtu boobu la tabaski di commencé ñu ne la waxtu tabaski muy commencé ci bis bi nga xamee ni mooy bisu tabaski ginnaaw ba imaam xutba ba pare imaam ñëw na julli na xutba na ba pare waxtu boobu la tabaski waxtu tabaski di commencé muy jeex nag ginnaaw waxtu boobu ci ñetti fan yi nga xamee ni ñooy topp ci bisu tabaski bi mooy fan bu njëkk bi ginnaaw tabaski ak bi ci topp ak bi ci toppaat ci timisu ñetteelu fan bi ci la waxtu tabaski di jeex comme ni mu ñëwee ci sunna wallahu taala alam kii day laaj ndax dina wër ma woo keneen mu daal di ma rayal waaw li soo mënee nga rayal sa bopp su dee nag danga nga mënul rey ci ay gàllankoor yu bari nga woo keneen mu rendil la maanaam mënoo rendi ndax danga nga amul fitam wala da am ay gàllankoor nga woo kenn ci sa dëkkandoo yi mu ñëw rendil la sa xar looltamit daggan na dara nekk ci wallahu taala alam kii mu ne ndax am na ay mbir yoo xam ne yu ñu ñàkk sopp la ci rendi xar waaw tontu bi mooy am na ay mbir yoo xam ne yu ñu ñàkk sopp yu bari la waaye ci misaal ñu tudd ci ñett waroo rendee xaru tabaski ci paaka boo xam ne bu paaka bu ñawul la wala li yonente bi sallallahu alayhi wa jàngale ci sunna mooy na nga jël sa paaka bu ñaw nga xamee ni boo dawalee rek day dagg ndax nga mën a noppal xar bi diine gi dafa mot sëkk waaye boo jëlee paaka boo xam ne paaka bu ñawul la da commencer dawal muy dagg di taxaw di dagg di taxaw loolu sonnal la yow mi nga xam ne yaa ngi rendi yaa ngi sonnal tamit xar bi nga xam ne moom la rendi beneen mbir bi mooy bu dee da nga yor ay xar yu bari sopp ñu ngay dajale xar yi xar yooyu tamit di xool ni ngay rende xar bi loolu luñ soppul la beneen mbir mi mooy ñenn ñi des fois dañuy sànni xar bi rek dëgg ko ci doole wala bës ko ci doole ba amaan na sa baat baat bi mun na damm balaa nga koo rendi gi tamit yenn la ci yoo xam ne yu ñu soppul la ci rey tabaski kii dee laaj laaj bu am solo mu ne ndax dina dagan ci man ci misaal ma nekk bitim réew mu yónnee sama xaalis fële ci Sénégal ñu reyal ma ko waaw dina wër boo nekkee ci réew tugal yi surtout réew yi nga xamee ni ñaare rendi foofu du rendi islam wala dañuy tare sax ngay rendi ci ay kër dina dagan ci yow nga jël sa xaalis yónnee ko ci beneen réew ci réewu jullit yi ñu tabaski ñu rayal la foofu sa tabaski waaye nag ñu lay fàttali na nga bàyyi xel ci xadis ummu salama bi maanaam kon fukki fan yi bu duggee bul di dagg say wee bul dagg sa karaw comme ni mu xadiis ummu salama wallahu taala alam kii dee laaj mu ne ndax am na xadiis boo xam ne day ñu di wax ci ngineelu tabaski ñu ne la waaw ala kulli xaalin ibnu arabi al maliki mu ngi wax ci kitaabam bi al aarid al ahwaz amuñu texte boo xam ne danaan la lii maanaam walla euh, wala euh, ñu ngi jéggalu moom dafa laaj lu gën ci maanaam ban façon moo gën ci façon tabaski maanaam comme ay xar yu bari la ban xar moo gën ci biir xar yi fekk texte nag ñëwul ne xar bi moom moo gën ci xar bi wala xar bi texte di ñëw ci texte daal te wër mooy na doon xar boo xam ne xar bu mot la te ñàkk maanaam xar moo xam ne xar bu mot la te shuruut yi nga xamee ni maanaam ponk yi nga xam ne moom la ñu waxoon ci xar buy mot mu daje ci wallahu lii yenn ci ay laaj yu fi rotoon la ci moom day laaj ne moom lañu ñu bu may rey sama xar lan laa wax ñu ne la tontu bi da nga naan bismillah allahu akbar lii de tabaski jóge ci man la ak ci sama waa kër lii lenn la ci ay tontu yoo xam ne ñoo fi nekkoon lépp loo xam ne tamit euh, ñoo fi jotoon root euh, kii moom day laaj ndax dina wër ma xaaj sama tabaski waaw xëy na dafa déglu woon commencement bi lu mel ni jotoon na nee nañ la dina wër ci yow nga xaaj ba looloy sunna nga xaaj ko ñetti xaaj xaaj bi nga sarax ko xaaj bi nga maye ko xaaj bi nga denc ko kii beneen question la mu ne ndax dina wër nit jël ay tabaski di ko seddali ah waaw loolu de wax dëgg yàlla dina wër bal dañ naan euh, jaamu yàlla gu rafet la te mot ndax moom yonente bi sallallahu alayhi daan na sédd moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ci Buxaari yi ne jëroon na ab ka ñëw yi ne daan na séddale daan na séddale yenn ci ay xar maanaam daan na séddale yenn ci saxaaba mi daan na séddale ay xar ñenn ci saxaaba mi surtout ñi nga xamee ni amuñu doole kon ñoom ñi nga xamee ni tamit euh, yàlla may na doole di jënd ay tabaski yu bari di ko séddale alool yool bu bare ngi ci yàlla nañu yàlla may yool kii day laaj mu ne par exemple ki nga xamee ni faqiir la ñëw na comme dañu waxoon ne xar yàpp tabaski buñ ko fayee kuy jaay ah kuy kuy fees mu ne kii nag am miskin la may nga ko yàpp tabaski daal di may ko tamit der ndax dina dagan ci moom mu jaay ko waaw moom mi nga xam ne miskin bu may la may nañ ko moomeelam la léegi mun nañ ko na ko jaay waaye yow mi nga xam ne da nga jëndoon pour tabaski yow lañu tere pour nga pour nga daal di ko pour nga daal di ci jël dara di ko fayee ki nga xamee ni moo lay feesal doomu ndey yi lii la ci ay laaj yoo xam ne ñoo jotoon ci site Islam House ci kàllaamay Kocc euh, ñu daal di jël ubbeeku ci borom xam-xam yi nga xamee ni ñoo ubbee woon ci ay laaj yu mel noonu lépp loo xam ne wax nañ ko fi mu jub ci borom bi subhanahu wa taala la lépp loo xam ne wax nañ ko fi mu daal di dëng ci kii jottali la doomu aadama matul wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam seen bopp ci nekk ci Islam House ñoo leen doon defal